nun nag nii ñuy soloo rafet na waaye taamu nañ képp kuy julli rek bu soloo ba noppi mu jël lu mel ne ab sarbet wala kaala gàll ko ci ay baggam te bañ koo muur ci bopp ba noppi laxaar ko ci baatam ndax kon day nuru jigéen loolu nag sib nañu muy jiite ci jàkk ba noppi bañ koo def bu dee jiite ci jàkk moom na ko def salaatun akuk julli tujj talaagoog def na ko niir baynal asaabtiini ci diggante kenu ya kenu yi bu dee ci jàkka ja mbaa jumaa ja dañu leen di rangale li ci ëpp nga xam ne buñ dee lal basang yi mbaa sajaada yi diggante kenn bu ne ak moroom ma kenn du ko lalaale nga xam ne dañ fay teg rek ay dàll foofa nag sib nañ ko fa jullee wa quddaamal imaam yi ak ci njëxul ilimaan ka lay jiite nga tolloo moom te fekk na danga waroon taxaw ci sàppe sa mbaa boog nga dem ba jiitu ko nekk ci kanamam bu fekkee ngant waralu ko ni ki xataayu béréb ba daañu ko sib waaye nag bu fekkee foofa daa xat ba nga taxaw ca kanamam mbaa nga làng ak moom bañu nekk ca sàppe sa du wàññi dara jamaaxatun ak mbooloo ba'da salaati diltisaamin ci gannaaw jullit boroomuk taqoo boroomuk taqoo da ci jublu ilimaani ratib ilimaani ratib mooy ilimaan joo xam ne mbooloom jullit ñi ñoo ko jiital mu baaxoo leen a jiite wala ka tabax jàkka ja moo ko jiital mu féetewoo jiite ga wala ilimaan jullit ñi ba tey féetale ko jiite ga ku mel noonu nag bu xasee julli ci waxtu wa nga xam ne ca lay jullee gannaaw ba mu noppee sib nañu meneen mbooloo dikk am ku leen jiite ñuy julliwaat ci jàkka ja ndax loolu day indi ak noonoo akuk féewaloo ci nit ñi di am nañu ne sax ñooñee ñëw bu ñu dee ay doxandeem dëkkuñu fa mën nañ faa def mbooloo la gën a wóor daal mooy bu ilimaani raatib jiitee mbooloom ba noppi ñu ñëwati rek te ëpp kenn ndax ñaar dañ koy jàppe mbooloo ci julli kon lu ëpp kenn buñ dikkee nañ génn ci bitti kenn ji dañu def mbooloo moo gën ñu julli ci biir jàkka ja di kenn kennoo ndax buñ kenn kennoo duñ am ngëneelul mbooloo te buñ defee mbooloo ci jàkka ji itam ñu sib ko nii ñu ko waxee waraatibun ak ilimaani raatib majhool ku di ku ñu réere sib nañu koo xam ne xamuñu ko maandu la xamuñu ko maanduwul la ñu koy def ilimaani raatib ñu def ko nag ilimaani raatib ci jullik farata wala jullik sunna ni ki korite mbaa tabaski la ñuy sib waaye def ko ilimaani raatib ci loo xam ne du farata tu sunna ni ki naafilay ramadan moom sibuñu ko ñii mu ci bëgg a teg itam noonu la ñu mel ñoo bokk àtte bi aw man wala koo xam ne ubbi na tuumaaleef na ko dañ koy wax ku ñu tuumaal waaye mooy ngóor jigéen ngóor jigéen benn muy koo xam ne day nuru nuru lu jigéen ci wax ak dox yi nag jëf yin mbaa boog muy koo xam ne daana def mbirum ngóor jigéen ca buntu suuf ba waaye gannaaw bi tuub na ko tuub gu sell ba bàyyi na ko kooku la tuub gay sell sell dañu seetlu démbam mooy tax ba tey sib nañu ñu def ko ilimaani raatiba wa axlafun akub aat aat mooy koo xam ne xarafut ku xarafut bu jiitee dana baax waaye nag sib nañu ñu def ko ilimaani raatib xabdun akub jaam ab jaam mën naa gën sax gor waaye nag taamu ñu def ko ilimaani raatibu xas yun ak ko ñu tàpp jamono yi jaam xewee am nañu daa am jaam di ko tàpp te tàpp googee lu araam la waaye kuñ xas tàpp rek daañu sib ñu def ko ilimaani raatibu ndax wax ja ak jëw ya da ciy bari ñu naa seen ilimaan ji dañu ko tàpp ak yu demee noonu ibnu sinan ak doomi njaaloo koo xam ne bàyyam juru ko ci yoon bu jiitee dana baax waaye nag ñu def ko ilimaani raatib moom mu baaxoo jiite foofa sib nañ ko wajaasa dagan na ay niinum tuuña tuuña mooy koo xam ne ab sawukaayam dafa tuuti ba mënta jote ak jigéen ko ñàkk gaa mën a jote jigéen mel ne kon daa nuru jigéen du tee dagan na mu jiite wa ama ak aji gumba gumba itam teewuta mën a jiite alkanu ak aji dotam ku làmmiñam dotam du tee mu mën a jiite mu jazzamun ak ku ñu ngaanaal xaf fa kook wayaf na ku ame woon ngaana waaye ngaana ga tane na ba du wàlleeti ba tey mën naa jiite waaye nag bu ngaana ga dee wàlle moom dañ koy ber duñu nangu mu jaxasoog nit ñi dañ koy ber mu faju ba tane ndor ko bàyyi mu sañ a jaxasoog nit ñi wa haza lii almumkinu mooy aji jàppandi maanaam lii moo jàppandi ci ñu wax ko fii ci téere bi nga xam ne bu ñu tàmbalee jëm ci kaw rekk la wal muqtadi aj roy ja yat ba dana topp al imaama ilimaan ba xalaa siyaadat ndare ndolleen xat du xoqi xat lool dëggaleef na ko iadila na nga jeng an xaa walis ndolleen la boo amee ilimaan mu lay jiite lu mu def rek da nga ko caa war a topp ndax mooy sa ilimaan ba mu des nag mu yokk yokk boo xam ne wóor na le ne ab yokk la kon da nga ko war a sàbbaal ndax mu xam ne ab yokk la su fekkee ne sàbbaal gu doyut da nga sañ a wax ak moom wax ji yam képp bañ a ëpp la yàlla ca béréb booba wa axarama almal na almas booku kañu raw fawran ci lu gaaw wa daxale te mu tàbbi maxal imaam yi ànd ak ilimaan ba kay fa maakaana nu mu mën di nekk rek alxamalu jëf ja mu kabbiran mbir muy aji kabbar in alfaahu ndem fekk na ko saajidan muy aji sujjóot aw raakixaan wala muy aji rukoo laa fii jëlsatin du caageenu ci ab jataay wa taabaxa topp na ko rek boo dikkee fekk ilimaan raw la fu mu toll rek dalal di kabbar fekk ko ca dañuy bañ nga fekk ràkk booba mu rukoo ca ba siggi mu wër la ne moom bii ràkk doo ko limaale tax nga ne naa bàyyi ba mu jàll ca ràkk ba ca topp dañoo bëgg rek foo ko fekk daal di armal rek ànd ak moom su fekkee da nga koo fekk nag muy rukoo wala muy sujjóot da ngay wax allahu akbar muy sa kaabaru armal nga waxaat beneen nag ngir rukoo ba nga ko fekk mbaa sujjóot ba nga ko fekk de boo ko fekkoon ci jataay moom da ngay wax rek benn allahu akbar muy kaabaru armal nga daal toog waaye doo waxaat beneen allahu akbar in sallama ndeyam sëlmal na al imaamu ilimaan ba qaama mu jóg qaadiyan mbir mu ngi aji fay aqwaalahoo waxam ya wa baaniyan tey aji jokk fil fihaali ci jëf ya bu li ilimaan rawee ba sëlmal da ngay fay lam la rawee woon bu dee ci wax ji maanaam mooy rakk bu ne lam ci jàngoon da nga ko cay topp jàng ca loola bu dee rakk bu mu jàngoon fatiha gu saar da nga cay jàng fatiha gu saar bu dee rakk bu mu jàngoon fatiha kese nga jàng ca fatiha kese bu dee fu mu yàll woon nga yellu bu dee fu mu biraloon nga biral bu ñu ne sax faaw nga jàng jëmmi saar woon jàngoon ndax mën naam fekki woo ko woon doo xam saar woowa mu des nag fii ilimaan toogoon na fi wala ilimaan toogu fa woon loolu moom yow mi ñu raw boo jógee bay fay doo ko ca seet yow daal foo xam ne sab ñaari la rekk toogal foofa taaye fa sa taaye bu jëkk foo xam ne itam du sab ñaareel bul fa toog moo tax mu naa bu ilimaan sëlmalee nga jóg daal di fay lam la roy woon te roy ko ca wax ja te bañ koo roy ca jëf ja jokk ci jëf yi rek mooy seet yow na say ràkka tegaloo fuy sab ñaareel rek nga toog fa foo xam ne benn la ci yow mbaa ñetteel la ci yow doonte ilimaan toogoon na fa itam yow bul fa toog loolu nag lu mata ràññee la te mën nga koo misaale timis boo ñëwoon ñu rawe la ca ñaari ràkka nga fekke ràkka bu mujj ba bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw doo wax allah akubar da ngay daal tàmbalee jàng rek fatiha aku saar te biral boole ci bu ràkka boobu jeexee nag ilimaan moom toogu fa woon ndax benn la woon ci moom waaye yow ñaareel la ci yow ndax da nga fekke benn ak iliman kon bo julliwaatee benn teg ci ñaareel lay doon nga daldi toog foofu taaye sa taaye digg boo jugaatee itam rakk ba ngay taxaw ñetteel la te du tee nga jàng ci fatiha ku saar te biral ko ndax moo doonoon ñaareelu ilimaan yow kay la soppi ko sab ñetteel waaye ilimaan moom ñaareel la woon ca moom kon na nga cey jàng fatiha ku saar te biral ko boole ca bu rakk boobu jeexee nag nga taaye sëlmal kabbara wax na allahu akbar in xassala ndem amal na shafhan tollan tollan mooy ñaar aw aqal la wala lu yees min rakkatin ci benn rakka waxtamala yanu na asahwa jamuj ba idzaaka ba loolee booy jàng téere yi dañ lay faral di wax naa la bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg taxaw di fay da nga wax allahu akbar léeg-léeg ñu ne doo wax allahu akbar ñi nag mooy takk-takk bi la nga fekkee ca julli ilimaan ba su fekkee matul benn rakka niki nga ñëw ca rakk bu mujj ba te fekke woo jàpp ca wóom ya kon yow amoo lu mat benn rakka wala la nga ca am day ñaari rakka rekk nga xam ne ëppul ñaar yeesu ko yaar yi moom bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw bay fay da ngay wax allahu akbar doora tàmbalee jàng fatiha waaye lu bokkut ak yaar yi te mooy nga fekkee ca julli ga benn rakka dong mbaa nga fekkee ca lu mat ñett kon bu ilimaan salmalee ba nga jóg ba taxaw da ngay jekki-jekki tàmbalee jàng fatiha doo wax allahu akbar boo ko waxoon nag du ko taxa yàqu jàppal nag ne rakk bu ànd ak ilimaan rek muy benn mbaa mu ëpp ko boo ci juumoon yow ci sa bopp juum goo xam ne bu doon yow dong ñu digal la nga sujoot xamal ne ilimaan yanu na ko mooy du jar ngay def sujoot ba waaye nag bu ilimaan salmalee ba nga jóg bay fay nag moom boo juumee seetal la nga ca war a def nga def ko ca ndax ilimaan la nga ànd ak moom rekk la gàddu waaye la nga àndut ak moom moom gàdduwu ko wayes judu dana sujoot almasbuuxu kañu raw qabliyal imaam yi sujootub xablab ilimaan ba maxu ànd ak moom waqadaate mu fay baadiyan sujootub baxda baxda salaam yi ci gannaaw salmal adraka moo xam jot na daaka sëhwa boobee juum awla wala jotu ko qayyadoo tënk nañu ne man lam yu xasil ku amalut rakk xatan benn rakka laa yasjudu du sujoot jàppal nag ne soo xasee fekkee ci julli ilimaan lu mat benn rakka jeex na sujoot bu ñu ko digal rekk digal nañu la ko doonte sax fekke woo ba muy juum niki ca lam la rawe la juume woon du tee rek moom sujoot bi ñu ko digal rek digal la ko waaye waaye nag ndegam dalaa raw buy def xable salaam nga ànd ak moom def ko buy def nag baxde salaam nga bàyyi yow ba fay lam la rawee ba noppi buy def nag baxde salaam fekk mu raw la nga ànd ak moom ci baxde salaam ba door a jóg àggali sag julli sag julli day yàqu ndegam yaa ko tey mbaa boog umpale ñàkk xam tax nga def ko yooyu yëpp moom day yàqu bu fekkee njuumte rek tax nag moom du yàqu su fekkee nag julli ilimaan nga fekkee woo ci sax lu mat benn rakka kon bu amee sujootu jamoo ci tam yow saw yoon nekku ca bu dee sujoot xabla mbaa baada nga ànd ak moom def ko rek sa julli yàqu man naam nag loolu dal la bu fekkee xamoo ko ndax man nga ànd ak ilimaan ca rakka bu mujj ba fekkee ba ñuy jàpp ca woom ya muy sujjóot nag xable salaam nga daal di ànd ak moom mbaa ba mu sëlmalee bay def baxde salaam nga ànd ak moom door jóg nag julli tegale say rakk nam war a tegaloo sa julli googee du baax am na nag ñuy teqale ne bu àndeeg moom sujjoot baax de salaam kat lay yàqu mel na ñoom dañ caa bëgg a génne bu àndeeg moom sujjoot xable salaam xëy na kon ñoom dañoo jàpp ne xable salaam moom njëkk sëlmal la te moom sëlmal a gut yow itam sëlmal a goo wa batala julli yàqu na li muqtadin ñeel aji roy bi mubtilin ci lépp luy aji yàq julli alal imaam ci ilimaan ba xayra faraxin ndare benn bànqaas maanaam ndare benn àtte mun jëlin bi aju feeñ te man mooy ka nga xam ne dakara fàttaliku na alxadasa toj ma aw xoliba wala noteef ko bi ci moom in baadara ndem gaawe na alxorooja génn ga min xaa ci julli ga takk-takk bi mooy lépp lu yàq jullik ilimaan rek yàqaale na jullik maamoom ma ba mu des nag benn àtte boo xam ne bu mat a xam la julli ilimaan ba rek a yàqu waaye jullik maamoom ma moom du yàqu loolu mooy ilimaan ji jiite ba ci biir mu fàttaliku ne moom kat tojle woon na te jàppaatut mbaa am toj rëcc ci moom su bàyyee fa saasay saasa defaatul dara ci julli ga gannaaw bam fàttali ko toj ma ba gannaaw ba ko toj ma rëccee moom rek mooy yàqule ñoom doon jiite kenn du ca yàqule wanu di ba soppeef na taqdiimu mu'tammin jiital aj roy yu timm ko dana mottali bihimoo ànd ak ñoom bihim rek mooy cosaan li waaye tax mu def bihimoo ba it abaahu ndeem bañ na ko in faradoo kon ñu kenn kennoo aw xaddamoo wala ñu jiital ku leen sopp ilimaan bu ko lii dalee ñu wax ne bu bàyyee fa saasay saasa defaatul dara ca julli ga moom rek mooy yàqule waaye ñoom doon jiite duñu yàqule sopp nañu balaa dem kat mu jiital kenn ca maamum ya ña ca des roy ca moom ñu àggale julli ga bu fekkee nag defut loolu daa jekki-jekki rek dem kon ñoom mbooloo ma bu ñu kenn kennoo ku nekk àggale sa julli bopp mbaa boog ñu bokk roy ci kenn kooko jiite leen ñu àggale lu mu ci mën doon rek baax na ba tey bu ilimaan doon jiite jàpp ne am nag laab bu mu jullee bu salmal nag mu door a fàttaliku ne moom kat amutoonu laab gis nga ne kon tëyut li mu def ba tey moom rek mooy yàqule waaye ñoom duñ jiite ñoom seeni julli baax na kitaabu zakaati lii mooy téereb asaka furi dot farataaleef na ak zakaatu asaka fiimaa ci lii nga xam ne yurta sa mu def na ko bind aynin te mooy kee wa xabbin ak pepp wa timaarin ak ay meññet wa naxamin ak juru kër asaka suñ borom da koo farataal ci yi mu tudd mooy kee te mooy wuru sa xaalis ak pepp niki xeeti pepp yi nga xam ak meññet niki tàndarmaak reseñ ak zaytoon yi demee noonu ak juru kër juru kër nag mooy xar bay nag gëléem xaqat yey ne moom asaka ku la xaamin ci mépp at yekk mulu moom dana mat fin xay ni ci kee wal an xaami ak juri kër ya wur sa xaalis ak juru kër moom at mu ne lañ ciy génne asaka li feeg ma ngay mat nisaab génne ko ci at mi du tee bu déwénee nga génnewaat ndegam rek ma ngay mat nisaab su noppee mat nisaab nag asaka du la ci warate daañu wax nag nisaab nu muy toll at mi itam doo ko takk ci tamxarit ba tabaski dee déedéet bu fekkoon nga amoon tey ak jur mbaa nga am wuru sa xaalis am gu yees dateel rek bis bi nga ko amee bu dee see déwén sa rek nag ci weer yi ak ca dat bi asaka dal la cay waral ndegam mat na nisaab wal habbu pep ma yuraamu def na ko sàkku bil ifraaki ci dijj ga pep moom bala ca asaka war mooy ñu bay ko ba mu ñor dijje na war a dijje su boobaa asaka war na ca nga xam ne gannaaw bu ñoree xomm bu fekkee da nga caa jota tàmbalee joxe addiya mbaa saraxe mbaa lekk ci sa kër na nga seet booy génne asaka lu tolloog loolee nga jotoon a génne joxe mbaa la nga jotoon lekk lu tolloog asakaam nga génne ko boole ci asaka ji joxewaale wa tamru tàndarma wa zabibu ak reseñ béttay bi nekk na ci teey ga tàndarma ak reseñ moom muy xeeti meññet yi bala ca asaka war mu ñor ba neexe nam war a neexe bu ñoree ba neexe nam war a neexe asaka dal cey war wa fii di sayti ak ca borom diw ga min zayti yi ci diwam ga wal xab waaye nag pep ma ya fii dana matale bu dee lu am diw mel ne olive moom aajo woon teqale moom nee nañu ndegam zaytoon ba am na diw rek génne asaka ja ci diw ga rek mooy baax soo génne asaka ci jëmmi pepp ma mooy jëmmi doomi olive ya mbaa nga jaay ko génne asaka ci njëgg itam du ko tax a baax ndegam zaytoon bi am na diw moom faaw rek ci diw ga la ñuy génne asaka ja lu bokkut ak moom nag boo génne asaka ca pepp ma itam mu baax moo tax mu naa wal xabbu yafi waxiya moom asaka alxushru mooy fukkeel ba aw nisfuhu wala genn wàllu fukkeel ba fi timaari ca meññet ya wal xabbi ak pepp ma in ya jurra nde moo doon diri alata saq yi jumtukaayu suuxat ga su fekkee day asakay mbay moom day wax na muy toll mooy bu fekkee ne asamaan say suuxat rek ngay bay mbaa daal suuxat ga moom sonnoo ca fayoo ca kon la nga bay boo ko defee fukki xaaj benn xaaj bi ngay joxe muy sa asaka su fekkee ne nag yaa ko doon suuxat ci sa loxo mbaa machine ay suuxat ngay fay machine ba da ngay joxe genn wàllu fukkeel mel ne sa mbay bu toll woon ci benn ton te fekk ne asamaan moo doon suuxat kon fukki barigo yi benn ba ngay joxe asaka su fekkee ne nag yaa ko doon suuxat wala machine a suuxat nga fay nag genn wàllu barigo ngay joxe asaka xamsatu aw suqin juróom wasq nisaabu nisaab la fi himaaj ñoom ñaar day wax nisaab mooy lan bu dee ci mbay mu ne la mooy juróomi wasq juróom wasxa nag mënees na koo tolloo lekk juróom benni barigo mën ngaa jàpp rek juróom benni barigo muy nisaa bi mbay ku mbayam mat loolu mbaam ëpp ko asaka war ko bu fekkee matu ko nag bu ko neexee saraxe ca ngir yàlla waaye asaka waru ko ca fii fiddati nekk na ci xaalis xul waxal mi ataani ñaari téeméer dirhaman ci ay daram bu dee xaalis nisaab ja mooy ñaari téeméeri dërëmi yoon ñaari téeméeri dërëmi yoon nag say boo njëkk xam rek benn dërëmu yoon nu muy toll ci xaalis bu sell bi nga xam ne moom la tëgg yi xelli di ci liggéey ay takkaay dërëmu yoon ci xaalis boobu mi ngi war a tolloog ñetti ngaraam yu manqué vingt-cinq milligramme kon boo nee ñetti garaam yu manqué vingt cinq milligramme mooy benn dërëm boo ko defee ba muy ñaar téeméeri yoon da lay jox kon cinq cent quatre vingt quinze garaam boo laajee tëgg ba nag benn garaamu xaalis boobu fu njëgam toll ci xaalisu CFA bu la nee nangam mel ne mu ne la deux cent quatre vingt kon deux cent quatre yooyu moom ngay multiplier cinq cent quatre vingt quinze boo ko multiplier cinq cent quatre vingt quinze mu jox la cent soixante six mille six cent loolu kon mooy nisaa bi xaalis ci bis boobee nga di ko seete waaye nag ndegam xaalis piir moom day yéeg ak wàcc saa yoo soxlaa xam nisaa bi xaalisu CFA fu mu toll faaw nga laaj benn ngaraamu xaalis bu piire boobee fu mu toll ndax nga mën caa seete lu nisaab toll ci yooyu jamono ñenn ci gëstukat yi dañoo seetlu ne nisaa bi xaalis day tuuti boo ko tollooleeg nisaa bi jur ndax boo seetloo gëléem nisaabam juróomi gëléem la bu dee nag nisaabam fanweer la bu dee xar wala béy seen nisaab ñeen fukk la loo seet ci yooyu nag moom xaalisam day daal di bari lool te nag nisaa bi xaalis moom boo ko seetee ci ni ñu wax daanaka li muy mat ñeen fukki junni néew na ñu ne kon nag dañoo war a far rek wurus bi nga xamee ne moom du faral la soppiku te nisaaba moom wurus mooy quatre-vingt-cinq grammes ñu seet rek jamono yu ne quatre-vingt-cinq grammes ci wurus lu mu tollal ci CFA rek loolay daal di doon nisaa bi CFA bu doon beneen xaalis itam ni ki euro wala dollar itam baa yeneen nit ñu seet rek lu ca tolloog quatre-vingt-cinq grammes ci wurus ñu jàpp ne loolu mooy nisaab ja bañu ko mujjee seet ci noonu nag nisaa bi xaalisu CFA dafa tolloo woon nag téeméeri junni ak ñaari junni gëstu boobu nag dafa mel ne lu neex a dégg la lu neex a nangu la boo dee seet nag nisaa bi wurus ci yoon dañ daan wax ñaar fukki dinaar waaye nee nañu benn dinaar ci yoon day tolloog ñeenti ngaraam ak kaaru ngaraam bi ñu loolu mooy benn dinaar nag boo ko defee ba muy ñaar fukki yoon mu jox la quatre-vingt-cinq grammes yi nga xam ne moom laa tuddoon léegi kon nisaa bi wurus mooy quatre-vingt-cinq grammes moom lay wax ne xisroo na ñaar fukk dinaaran ci ay dinaar nisaabu nisaab la fi dahabi ci wurus kon ku am loolu ci wurus asaka war ca warubul xusri kaaru fukkeel ba wajaba war na fiihimaa ci ñoom ñaar su xaalis ba matee nisaab nag wala wurus ba mat nisaab mbaam ëpp ko boo ci dee génnee asaka xam na asaka yee toll yomb na lépp lépp ngay boole def ko fukki xaaj benn xaaj ba nga xaajaat ko ñeenti xaaj ñeenti xaaj yooyee boo joxe rek mooy sa asaka ci misaal ba yoroon million bëgg a xam asakaam nu mu toll da ngay def million bi fukki xaaj xaaj bu ci ne nekk ñaar fukki junni ñaar fukki junni yi nga defaat ko ñeenti xaaj xaaj bi nekk doon juróomi junni nga daal di xam ne juróomi junni mooy asakay million bi nga yor sa xaalis nag nu mu bari bari ak sa wurus nu mu bari bari noonu rek ngay génnee asaka ja wala ardu marchandise ma jur tajri ma di boroomuk yaxantu wa daynu man ak borob ka nga xam ne adaara wëndeel na qiimatuhaa xaymaam daa mel ne qiimatuhoo moo gënoon a yell mu daal di ëmbaale alxardu ak daynu kal xayni mi ngi mel ne jëmmi keega mi ngi mel ne jëmmi wuru sa xaalis dafa tudd rek marchandise waaye da cee jublu lépp loo xam ne du wurus du xaalis te itam jëmmam asaka waru ca loola bu fekkee nekkoo ca di ca commerce loo ko barile barile asaka du ca war boo ci dee commerce nag moom ñu seet su fekkee da ngay jaay rek prix normal nga xam ne xaalis du sax ci sa loxo wurus du sax ci sa loxo ndax da ngay jënd di teg te di jaay itam ci prix normal ku mel noonu saa yu am atam matee day seet lam yor ci xaalis kaas ak lu mu dénkaane ci xaalis ak lépp li mu yor ci marchandise marchandise mu ne mu seet yooye jamono fu njëgam toll ndegam njëkk day wuute ci béréb di wuute ci jamono na seet rek fa njëkk toll ci yooyu jamono marchandise mu ne mu xaymaa ko loola su boolee yépp seet nu asaka ja war a toll rek mu daal di koy génne joxe xaaraat nag bu waxtu wa del si ci déwén sa mu dellu defaat noonu rek muy wéy buñ ko ameelee bor boo xam ne waxtu fay wa jot na te xam ne ne kooku am na ko te dina ko andi da koy daal di far limaale benn yoon bu dee bor boo xam ne nag xamul kañ la cee jot ndax benn boroom mënta fay mbaa mën naa fay waaye dafa jubadi te mënu ko yóbbu ci yoon na bàyyi rek ba jot ca ba si jotee rek door caa génne asaka loolu mooy benn xeetu commerce bi ñu tuddee idaaratu ko wax ak wëndeel bii des nag moo tudd ixtikaar koy wax dakkar ci moom lay bëgg a wax